li ko tax a jóg Thierno mooy mouvement ànd aar li ñu moom Touba Ndamaatu mouvement bi diire na 9 ans ñu ngi doon dox si développement ak social. suñu gisee mouvement bi ne boobu ba léegi sax xay na aguñu fii maanaam dañ ko relancé wutoon dëgg-dëgg daal dañ ko defoon vie colo suñu biir rek buñ gisee cas social ñu jël ko en charge euh, su ko defee maanaam bu buñ paree nekkaat si suñu liggéey loolu la woon mais dañ yëpp xam ne maanaam dëkk bi laaj na ñi fi nekk di jeunes yi ñu jéem a takkatoo defar mouvement bi su ko defee maanaam ci wàllu santé bi ci wàllu euh, social bi ak développement bi ñu si man di jàppale askanu Touba loolu moo waral mouvement bi juddu mouvement bi rek bu ñu ko gisee nii dafay nuru politique mais du mouvement boo xam ne politique moo ko tax a jóg mouvement bi pour développement social ci la tàmbale ci la yem maana nag ku gis cérémonie ak bis bi tey ni mu mel ndax dañ ko darajaal ay kilifa yu mag yoo xam ne dañoo nekk ci benn bokk yaakaar euh, ñu ñu bi nekk Serigne Galas Kaltoom teddali si benn bokk yaakaar euh, darajaal Cheikh Abdou Bali marraine bi Ami Mbacké Dash ak euh, ku ñuy wax Moussa Seck Mao euh, son 2 Ndindi mi ngi nii sangat ak euh, ñu bëree bëri ñoo xam ne ni si si ñun ñun duppi bi ci lañ bokk ku mel Moussa Matar Diop ak ku mel ne Mohamed Ciss waaw waaw loolu ñoom ñëpp waaw bi am solo muy may tout bu ñu gisee waaw bu ñu gisee li waral don de sang bi euh, dañu préparé euh, événement bi bi ñu demee ci hôpital Ndamatou waxtaan ak euh, madame Mbacke nga xam mooy directrice su hôpital Ndamatou. bi ñu waxtaanee ak moom si programme mu cérémonie bi ak cant gi nga xam ne muy sant Serigne Mourou Dieng gi ñu ko booleel. mu rafetlu ko lool daa ñuy wax nañu nag ah bu ngeen ci booloon don de sang dina gën taaru ndax fi ne instant yi banque de sang yi dafa widd dara nekku fi dafa tëj ndax ndax ma ñàkk deret ñu ne ko loolu vraiment war nañ cee war a mën a war nañ cee war a mën a boole biñ ko ci biñ ko boolee si lancement bi boole ko ci publicité bi maanaam dem si kilifa bi waxtaan si ak ñoom dip suuba léegi si instant binto ñi ngi si maye deret bi daanaka boo xoolee li fi mayeegun deret daanaka léegi tey mu dem si cent et quelques personnes kon loolu doon na loo xam ne ni vraiment euh, avancé na ndax euh, maye deret ku ne xam ne li si yàlla wax kon nag dafa am loo xam ne tey ji bu mouvement bi ñëwee tàmbalee seen programme si maye deret euh, daf wàcc fi ay kaamil avant dara xew Euh, daf fi ay ay bernde ma loolu doon na loo xam ne nii ah, euh, mooy suñu warteef si Touba daal. waaw ci wàllu social si dañ ci yëngu ndax euh, su ma jumul 2007 am nañ benn femme boo xam ne nii si consultation médicale gratuite bi ñu defoon fii si buntu kër gi àndoon ko docteur Amdi Lo consulté woon nañ foog naa quinze personnes. ci biir consultation yooyu amoon nañ fi tamit ay malades yoo xam ne dafa nekkoon ay malades yu xaw a garaaw léegi bi mu passé ñu jël jëleen en charge am si ñoo xam ne faj nañ leen ba ñu nekk seen sago ki ci gënoon a garaaw cas Fatick lañ ko lañ ko affecté foofu la foofu lañ ko mujj évacué ba ñun ñoo ko jël en charge def nañ ci moom 800000 faj ko ba delluwaat nañ ci sagoom am ci koo xam ne aussi dañ ko tàmbalee faj suñu borom daf ci la gën bi biñ ko defee teewul lañ jëloon muy si social bi nga ko dimbalee euh, euh, maa jox ko ay mbokkam ñu def ko si ñaan gi ak ñoo xam ne ni dañuy ñëw fekk ñu si bureau bi am jafe-jafe ñu foobu lañu am jox leen ko. mouvement bi euh, waaw loolu ba tey Thierno li ma la wax sànq ne la mouvement bi nekkul mouvement boo dafay politique ndax euh, tey bu dama la wax sànq ne la boo gisee profil bi ak ni ko kii da nga jàpp ne mouvement bi dañu dox ci politique 100 pour cent mais mouvement bi. politique samp ko xëy na politique dañ cee fekk na période bi ku ne xam na ne dañoo toll si jongante sa instant bi ñi nga xam ne day jongante aussi am na si ñoo bëgg nañ lu baax sa jàpp nañ ne tey bu ñu jëlee suñu bis jagleel ko benn Bokk Yaakaar dana doon loo xam ne dina doon njariñ si ñun en plus dana danañu mën a appuyer ba li ñu bëgg ñu am ko loolu moo tax ñu jël euh, ñi nga xam ne waa Benno Bokk Yaakaar dara jël leen ko ñu def na ko ay parrain parce que tey bu fekkante da nga woo tey opposant bi mën ngaa dem benn instant boo xam ne nii sa message ni nga ko bëggee dëgg-dëgg mën naa bañ a demee noonu wala yu demee noonu wala pëcc xoor yi fi am suñu loolu taxu ñu jug li ñu tax a jug mooy ku gis suñu image wala nga gis suñu profil muy nekk loo xam ne nii da nga ñu ñemee pour ëllëg suñ tur mën a yegg foo xam ne dañu xam ne carrément mouvement bi si mouvement bi la tàmbali si mouvement bi la yem maam Thierno ñu ngi lay nuyu di la ziare di nuyu ñi fi teew yëpp tey journée bi xam nga kuréel gi kuréel la goo xam ne ci wàllu social ak développement la dox maa ngi dégg ngay laaj tey yi si nekk tey def politique kuréel gi euh, bi ñuy jàppee ndaje mi dañu waxtaan ba dégg déggoo si parrainel ko Benno Bokk Yaakaar kon déjà politique la kuréel gi nag daawul ci dox li tax daawul si dox mooy euh, boo bu juddoo il faut lu jot ñu dugal ko lu jot ñu dugal ko ba tey mu jot ñu war a organiser ba ndaamaatu kër Baay Laat centre de vote yi nga xam ne dafa nekk nan la kuréel gi di def ba dugal ci loxoom ba perte bi ko bennoo boo ko Yaakaar doon perte mu mën a dakk loolu nag liggéey la boo xam ne du liggéey bu ndaw liggéey bu yaatu la bu ñuy liggéey dugg ci gox-goxaat yi wax ak nit ñi ñu gis ne dajaloo di def rassemblement dëgg la baax na ndax activité politique la mais nan la ñuy def ba banque de sang bi nga xam ne mu ngi biir opi mu ngi biir ndaamaatu muy hôpital bi nan la ñuy def aussi ba moom mu bénéficier wu ci daje boobu ñuy daje ba am lu mu yées yées cent ba cent cinquante postes de sang tey nag nit ñi mobiliser wu nañ ñëw maye si te gëm naa ne taxawaay bi ñu am ci journée bi ci doone sang bi taxawaay boobu la ñuy am ba ba ñu dem ci élection yi ba ba ñu siy génn incha allah benn bokk yaakaaram ndam bëri moo loolu moo wax moo tax ñu woo kilifa yi tey pour dajale wax ak ñoom Ndaamaatu booy wax inondation booy wax napp booy wax wàllu yoon euh, lépp Ndaamaatu la ëppee fi la jafe-jafe dëppee tey si Touba. ndaamaatu kër ñang ñooy ñaari quartier yi nga xam ne ñoo ëpp ay sinistré ay nit yoo xam ne dañoo daw bàyyi seen kër wan ko gannaaw daw wuti feneen fuñ dëkk loolu aussi dañ ci bëgg waxtaan ak kilifa yi mooy kër yooyu nga xam ne jege nañu luy mat téeméeri kër yoo xam ne seeni borom daw nañ wàcc ko kañ lañ siy jublu kañ lañ leen di wax ñooñu kañ la ñuy dellu ci si seeni kër ndax fa ñu nekk aussi te nawet bi mu ngi ñëw ñii dañu àbbu ay kër ñii dañ leen a boole wante si ay kër ñenn ñi ba léegi ñi ngi bokkatu ci biir kër yooyu nga xam ne ci biir noor bi ci ay ndox lañu nekk dem nañ seeti leen waxtaan ak ñoom amuñu nag lu ñu leen jox waaye wax nañ ak ñoom ñu wax dellooñu te bëgg nañu incha allah kilifa yi bu ñu ñëwee ñu wax nan la ñuy def pour dimbale leen ba ndox moomu ñu nekk wala ñi daw wan ginnaaw seen kër nu ñuy def ba dellu si leen.